li ma bëggoon wax mooy c'est une très belle analyse qu'il a faite mais le problème c'est que les facteurs d'influence yi influer ci éducation nit ñi yemul ci rek li ngay jàng école donc am na facteur yu bëri donc it c'est une très belle idée mais je me demande est-ce que mën na nekk donc man je pense que la meilleure manière de tirer les gens vers l'agriculture c'est utiliser le signal du marché si les gens peuvent s'enrichir en, en devenant des paysans. kenn du leen éduquer des des fermiers. voilà mais c'est ça je veux dire que si on peut bu ñu lay fay xaalis bu bëri pour nga nga nekk paysan. mais kenn du la kenn du la jàngal pour nga nekk un patriote. mais il faudrait faut que ça paye. ba mbay mi ña ciy liggéey. nga nga ciy jëriñu dañu leen di ñee. fi ñu qui deviennent des fermiers comment faire. voilà c'est ça donc c'est le signal du marché qu'il faut utiliser. plutôt que la reconversion